mbokk internet yi seetaan Dakaractu ñu ngi leen di jaajëfal ñu gis ne bu la yàlla jëlee sa bakkan sax ca muy coobareem day metti sa famille rawatina nag mu dem ci demin boo xam nit moo la faat Sidi marta Fall ñu koy woowee Sidi Naar mu am fanweeri at ak juróom-ñaar nekk dawalkatu fas ñàkk papam ak yaayam amul jabar amul doom moom la ñu faat démb ci guddi ci quartier coon Samb bi nekk Géejawaay kii nga xam ne nag waat na ci yëf yi nu mu demee mi ngi waxee paaka lañu ko jam moom ci li mu fekkee dañu ko xoj ba ci la ñàkkee ba kenam démb dañoo toog ba guddi am ko daw si ñëw fëgg mu ne ubbi leen ma ne sama jëkkër déedéet bul ubbi lan la lan la mu ubbi la ma ne ko bul ubbi sama jëkkër ne ko yéen borom courant bi la mu ma ne ko dama ubbi bul dugg dugg ma dem dugg ci biir ma sol sama kilo daw taxaw ci force bi ma ne ko yéen lan la lan la mu ne diwul ba ma xam ñëw leen ma ne ko waa ñu ñëw sama jëkkër daal ànd ma ne ko dama yee sama mag bu jigéen mu yee ko dem ànd ak moom daal ñëw fekk ko rek mu dee fekk ko rek mu tëdd loolu lañ ci am ñu laaj ci ñun da doon xeex waaw heure bu ñu dee marché njaareem ànd sama mag mu làmb poosam jox ma doon nañu jàppale moom ba gi dem mu mujjee ñoo def ñoo jàppale daf ñuy jàppale man ma ci man la topp am na ñaar fukk at ak juróom-benn léegi yoon def rek liggéeyam rek xool ba enquête gis kan moo ko rey loolu rek bëgg yoon def liggéeyam. ñun dañoo tëdd fii ba guddi rek ñu wooñu dañoo ñëw rek fëgg ñu jóg ñu ni lan la ñu ni ubbi de ñu ni déedéet du ñu ubbi lan la ndax ñu tam dañoo ragal xamuñu woon lan la léegi ñu ni ubbi de ñu ni déedéet wax leen kii jëkkëram daa dugg ci biir néeg bi sol yéreem di bëgg a tijji ma ne ko déedéet bul tijji waxal leen lan la ñu ni ah sidd moo xëm pële ku ko bëgg a gis nanga nga balaa sàppoor yi di ko yóbbu ci la laayee sama raq bu góor bi ak sama jëkkëru raq bi ñu daal di dem ñu toog ba ci kanam tuuti rek am ku ñëwaat ne xanaa yéen woowuñu leen ma ne ko ah am na ñu dem mu ne en tout cas daal Sidi dee na ma ne ko Sidi dee ñu ne waaw ñu daal di dem ba ñu ñëwee fekk ko mu tëdd ñu sàng ko benn sër fekk sàppar yi taxaw loolu nañ am ci moom macha allah amul benn problème ak ñun wax dëgg fa yàlla amul problème ak ñun lu mu am. metti na torop xale bu tuuti daful kenn waxul kenn waaw ñu ne defuñu waxuñu lu mu am ñun la ko jox waaw te musuñu koo dégg ci police musuñu koo dégg fenn waaw kon nag bakkanam moo nañ ko koo bàyyeel waaye comme lii la yàlla dogal nag nañ yoon def li yom rek liggéeyam rek. dema vers 11h la ndax ñoom ñaar ñëpp dañoo màndi di di xeex ba ñuy xeex nag ñu njëkk xeex ñu àtte leen keneen ki wiiri taxaw ci ruq bi di ko xaar keneen ki nu muy demee nag ñu daw songowaat ba ñu dawee songowaat ñu kortante wàcc ci suuf ci la kenn ki pressé mu ngi ko pressé noonu nag ñu ñu ñëw dindi pressé bi instant yi dindee pressé bi noonu keneen ki ci la dëpp yëngootut ñu dëppandi ko après beneen booy bi ci laa ne beneen booy bi kii nii lu ko dal mu ne kii pressage nii lay def day xëm man tam may leen kii xamut ñu nekk di yëngal yooyu booy bi ne noonu nii lay def day xëm ci la booy bi dem indi ndox ñëw sotti ko après ñu xool man ma ñëw ci laa làmb ci kii euh, ci put bi nii gisatuma muy nooy man tam ma leen comme kii kii kii dee ñoom ñu ne deewul day xam nii lay def man tam ma bàyyi noonu arrière taxaw noonu di seetaan nag ñoom toog nañ ay lu mat ay 30 minutes 40 minutes sapeur door a ñëw bu ñu ñëwee ñëw def lu ñuy def ñoom tamit après ci lañ xamee ni moom wàcc na liggéey. police ñëw na fi après affaire bu affaire amee ay 11 fi ñëw ay 1 heure 1 heure fi police ñëw après après 2 heures de temps après waaw. jam-jam bi boo xoolee jam-jam bi nekkul loolu taxu sax ñu la jam-jam ndax dagg bu ndaw la rek loolu noonu taxu ñu la jam-jam ndax waa mburu la yoroon te jam bo jam bu mu ko jam noonu nekkul jam boo xam ne ni dugg na jam bi ñun ñi ñu sumbee ba ma sumbee mbubu waaja laay door a xam ni kii yor eh, yaram bi ci la ci lañ gis dagg-dagg ba mooy leen comme paaxa mu yoroon moo tax dagg-dagg bi am kii noonu waaye nekkul jam boo xam ne dugg na xale bu laabir la musu fee xas mag bi mu amee 14 ans la ñëw si koñ bii musu fee xas mag ko fee saaga musu manqué benn respect mag ñun ñëpp mag ñëpp ay la lañu wax dëgg yàlla jotawloo ñun dara xale bu laabir waaw baax baax ba bëgg a dee xale yu ndaw yi bu ñëwee xale yu ndaw koñ bépp lu mu yor xaalis bu wàccee ñoom ñëpp lay jëndal lu ñu mu jëndal leen ko loolu leen ko xamal dara ko saret la woon te na saret yii ba mu amee 14 ans la ñëw fii si pàkk saret bi yàgg na fi même moromam yi sax am na ko doon wax sànq ne mu Siri mosuma ko gis police ko mosuma gis sax yàlla xale bu retaan lu woon day ñëw fu di retaan ku ko romb sax ngay taxaw ngay dégg waxtaan la ngay retaan suñ koñ bi amul sécurité waaw suñu xale yi huit heures yi duñ la ñemee yónni fenn surtout ruq boobu ñu ko reyee kenn ñu mu fa aw ruq boobu moom bëccëg sa kenn fa jaar waxuma laa guddi xanaa ko xamul koñ bi xamul ruq bi kese moo fa jaar bëccëg mais ruq bi bëccëg kenn fa aw waxuma laa guddi kenn fa jaar waaw lëndëm na amuñu lumière amuñu dara koñ bi la na te amul sécurité police nag mi ngi fi ñëw chaque jour di ñëw si tali bi chaque jour mais duñ dugg si mbedd mi foofu la ñuy yem bu ñu ko defee ñu daal daw xale góor da bandi daw dem seen yoon bari na ay bandi daal